dara jarul xepp dara jarul négligé comme que nee nañ président Macky Sall jël na ab décision boo xamante ne nii xaatim nañ ko fii ak ay weer loolu dina génn te dañ leen yokkal benn weer nañu woo nañ leen woo ñu waxtaan te mbirum sanction ak mbirum menace nañ ko teg ci suuf parce que man jàpp naa ne moment fi ñu toll nii xadi c'est pas moment ñi ngi xaar nomination poste euh, premier ministre ba léegi si pour wax dëgg yàlla ñu génne décanter la situation instant bi mën nañu wax ne le pays ne marche pas donc buñ ci rajouté wax dëgg yàlla euh, gis nañ sëriñ Saliou li xew fan yi yëpp am sax ñu jëlee ay gaañu gaañu waaye ci seen i kàddu ñoom dañuy minimiser bay wax ni lim bu ndaw la et itam ay fauteurs de trouble lañu xam nga euh, gàcce la nga gis le directeur de l'AS la st toog di wax di lay menacer. ki nga xamante ne moo war a formuler les solution moom du indi warul indi répression boobu su fekkee ne limb limb néew la dafa am ñoo xamante nii dañu yëkkati seen kàddu. am lu ñuy ñaxtu je crois que li ñuy waroon def mooy ñu toog ñu déglu leen. te li ñuy revendiquer lu légitime la. mais xam nekk ci réew moo xamante ne nii mooy. dinaa ko fa defee mais yow doo ko sooxee. Mm-hmm. te loolu moo fi am. Mm-hmm. ñii am nañ leen a xaree on leur repose un statut statut ban statut tey moo leen wax ne que ñoom waruñu waruñu waruñu manifester. Mm-hmm. Sénégal sax dañu nekk en retard par rapport à ça tey boo demee France dafa am le syndicat des policiers c'est-à-dire waa police seen wàll boobu sax am nañ droit bu ñu amee lan naqaree ñoom ñu dem ñu revendiquer. waxatuma laa ay ASP. te moom ñoom li ñu war a xam moo di ñii seen une même de dignité. li ñu leen di fay bu ñu ko waxee da ngay saa da ngay yéeme. et pourtant être que moom Birame Faye mii. pouvoir politique moo tax tey peut moom mu nekk si

boo amee sa agent muy ñaxtu danga war a déglu te nga bañ indi répression. Mhm. parce que simplement c'est une question de norme moo tax nga ne on va les sanctionner. sanctionner pour lan ñu leen di sanctionner. Mhm. ñi nga xamante ne ils sont sacrifiés amul lu ñu amul amul lu ñu deful. pour satisfaire leen ñoom ba pare ñu taxaw fi tey amul leen lu ngeen fay ñu naan dañ leen dañ ñu leen dañ leen di sanctionné. Mhm. il doit avoir honte de sortir et de d' organiser une conférence de presse pour di dal seen kaw. Mhm. Sëriñ Saliou ba tey ci wàllub ñaxtu gis nañu ko waa CUSEMS ak SAEMS ñoom mayuñ dara gouvernement Sénégal fan yii la ñoom ñiy sàkku ñu saytuwaat euh, payooru agent yi nekk ci fonction publique bi rawatina ñi yëngatu ci njàng meeg jàngale mi euh, bi Sall Idrissa Pouy euh, Cheikh Seck ak ñamu àndaloon xamle nañu ni dinañu amal grève euh, général ci weeru mois de mars bi bu ñu ci noppee itam dinañu amal ab marche nationale ñu sàkku ci nguurub Sénégal mu sëgg ñoom itam ci seen ay euh, payoor ñu xool nu ñuy def ba ñu am lu gën li ñu leen di jox ci jamono ji ñu ond ceek Alassane Balde grève ci mois de mars bi dinañ def marche ay bor le 25 dinañ def grève kàddu yi nga xam ni Cheikh Seck yëkkati na ko di firndeel taxawaayu liggéeykat ya nekk ci secteur de la santé te bootu ci fédération des syndicats des acteurs de la santé di f 2 ñoom ñooñee doon amal assemblée générale daal di siiwal seen plan d'action. Ils ont peur d'une année blanche, c'est pour ces raisons qu'ils sont en train de, régler le problème de certaines personnes. Mais quand on aura fini de fermer les services et les structures sanitaires, je pense plan d'action bu ni mel li ko tax a jóg mooy xeex ñàkk yemale bi nga xamante ni nemmeeku ci système de rémunération yu agent yu état yi waaye ndóol bi nga xamante ni loofal lool liggéeykat yu secteur de la santé. est que mën nga concevoir tey njël benn indemnité jox benn nit bu ëpp salaire koo xam ni la muy liggéey am na am na truc te du loolu kese mais mënuñu toog depuis ba tey mu nekk président de la république chaque jour ñu ñuy tax a jóg ñeel taxawaayu enseignant yi F2S artu nguur gi ne nag daañu défendre seen intérêt xawatina seen bërëbu liggéeyukaay. alliance bi ëmb syndicat autonome de la santé itam ni ki tey déposé nañu ab préavis de grève ànd gësëm jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi daal di dellu si ci seen ay sàkkuteef waaye itam di xam le ni euh, groupe euh, Sénégal dafa li ñu nemmeeku mooy ñàkkub engagement jëmale ko ci ñoom ñu ànd ceeg Tidiane Diallo alliance des syndicats autonomes de la santé ànd gësëm ñu ngi dénoncé anam yi gouvernement bi ñaqalee fayda seen doléance yi. dañoo xëy rek gis ministre des finance mu daal di jóge foo xam ne kenn xamu ko jàkka jàpp nañ ne nag luxuskat ñàkkul am na ci xëy na day luxus ndax suñu toogee rek dégg ni 69 milliards génnee na ko te barki Dembo Ndiaye premier mai président de la république ni mënta yokk dara ministre de finance xëy suba génnee 69 milliards. man damaa jàpp ni gouvernement bi daal dañ dul waxtaan wala boog dekkuñu benn say bu ñuy jaaree ni ñuy jaar nii te jàpp nañ ni président de la république moo ci jiitu. syndicalistes si déposé nañu sax tey benn préavis de grève. préavis de grève boo xam ne incha allahu rabi euh, mi ngi commencé def def nañu dépôt tey tey fukki fan ak juróom-benn ci weeru euh, euh, février donc muy couvrir ba 16 du mars. au 17 septembre ndax dañuy bàyyi benn weer boo xam ne dañ leen di may sens ndax ñu négocier ñun moom course de vitesse duñ ko def course de fond la ñuy def tiituñu ragal lu ñu defoon nañ fi 17 plan d'action mu saf-saf bu boobaa ñu delloowaat ko loolu lépp rek ci ñoom la dépendre. teg nañu benn plan d'action ngir jàmbaarloo ak nguur gi. ñu nangur la syndicat euh, jàngalekat yi ni mérit bi yëpp ñoom la ñoom ñoo tax tey nguurub Sénégal sëgg ci jafe-jafe yi ñeel wàllu payoor jafe-jafe yoo xamante ne bari na secteur yu mu nekk du rek jàng meek jàngale mi ñoo di ci commentaire bu Léopold Tomba ci ndorteelu atum 2022 bi ñu dugg bu amee loola maskan wi moo di grève gi jàngalekat yi sumba boobu ak léegi ñeenti weer ca ndorteel lu ko sooke moo di SAEMS ak CUSEMS ñoo taxaw tem ni seeni payoor di indemnité faw nguur gi xoolaat ko ni ñoom ya yeneenu koor ya yellool ñoom it waruñoo péete ginnaaw donte ay daje am na ngir waxtaan daanaka loole sotti wut laaj gi ci toftalu kañ moo di ci jàngat li di laaj ndax gafa réew mi antan na ko lii lee jur na yeneen i ñaxtu misaal gi di ànd gëzëm fellu ci wet gi di waajal ñoom it waaye lu leer ba des moo di coomu àdduna si daal lompoñ ndax coronavirus bi la mu yàq ci koom daanaka naxal na ay réew yu bëree bëri rawatina yi gën a ndóol ni réew waaye góor gi moom it kenn demul mu des ba ca jéemoon dara ca njëlbeen nga amaana dena am saafara tey jii lépp lu yittewoo borom kër daanaka yokku na du courant du ndox ba ci leneen bu ñu it parte ni même réew saa su élection dikkee ñii ci nguur gi du ñu noppee di daj ay chantage. Sëriñ Saliou ci mbas ñu nekk ci ay jafe-jafe itam ci wàllu koom ndax gafa ga euh, nguur gi permettre na ko yi sàkkuteef yi yëpp mu matal ko. moom mais xam nga nguur gi ci boppam moom mooy euh, wane boppam. Mhm. parce que fan yi ci ginnaaw gis nañ ne y' a des yoo xamante ni agent ya fay liggéey yokkal nañ leen ay indemnité mhm. du benn corps du ñaari corps. Mhm. peut-être mën naa trois corps yoo xam ne xam naa leen yoo xam ne dañuy xëy ñu yokkal leen des indemnités. Mhm. yoo xam ne dafay jógee trois cent mille ba cent cinquante mille. Mhm. léegi loolu yow nga def ko nga bëgg a taxaw ne nga ne dëkk bi amul xaalis. Mhm. au même moment ñu gis xaalis bi ñuy jël di ko dilapider ci biir dëkk bi. mais loolu moo tax aussi yenn secteurs yi nga xamante ne jàpp nañ ne ñoom ils sont lésés par rapport à la rémunération dans la fonction publique muy enseignants yi muy corps yi nga xamante ne affaire bi dafa leen léser li wóotoon na mooy ñoom duñ ci dellu ginnaaw hmm. te je crois que loolu